xamante ne dafa am ñu am ñu jël alalu réew mi mënuñu ko def seen tur di ko def ci seen tur ñeneen ay xarit wala ay mbokk wala ay am di jàmm yoo xamante ne pour bañ rek ñu laaj leen xaalis bi ngeen liggéeyee lii fan la jógee mu mu mujjee feeñal luubal muy ay prête-nom dinañ leen waxtaan bu ñu waxtaan ak ñoom pour ñu mën a feeñal seen bopp bu ñu feeñalee seen bopp duñu leen toppee dara non seulement duñu leen toppee dara waaye bu dee jël nañu alal loolu tax na ñu jël alal delloowaat ko ci réew mi ñun dinañ am loo xamante ne dañ ko leen koy ciy jox pour gën leen encourager lii di rapport yi nga xamante ne tamit dañuy jël ay corps de contrôle samp leen ñu mel ni IGE mel ni Cour de comptes mel ni nag ñu dem defi ay rapport rapport yooyu war a dem ci procureur sénégalais yi nga xamante ne ñoo soxla lu leer ci ni ñu saytoo seen alal mënuñu ko gis loolu bu soobee yàlla dina jeex ci réew mi ndax fu rapport génnatee ci cour des comptes génne ci nag askan wi dinañ xam rapport bu lu ci buñ ko dee yóbbu ci yoon nag dinañ ko yóbbu ci yoon bu dee am na ñu ca tuumal loolu yoonay wax ndax taqee nañ ci wala wuñ ci lii di tamit loo xamante ni yàlla wërsëgal lañu ñu ko muy ay ressources